Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ak euh, macha allah ni mu taaroo ak nin respecté seen doom réew bi ak seen fi ñuy jëlee otoog maanaam di wane daal Europe ci seen liggéey gi nga xam ne liggéey nañ ko ak ñun sunu càggante ak ñu nekk États-Unis ñëpp daal. te léeg dangay dégg ci biir wax yi gars yi naan ñoom coono gi ñuy gën a sonn waa Sénégal ñoom ñoo gën a tax xam nga waaye ñun taxuñu pour ñun suñu biir ndax dinañ am lu lekk dinañ am lu naan waaw ba ci man mii sax damay faral sax di ko wax man tamit ma naan leen léeg man sam bopp xam nga ma leen expliqué naan leen fii nii maanaam nit bu feebaree sax bu wootee ambulance rek ñu jël si ko wala même boo amul loo lekk. am na bërëb yoo am dañ fay maye lekk waaw yooyu ñu bëgg ci def ay taxaw seetlu rek pour dimbali suñu askan tamit euh, ndax yooyu boo gisee li tax ñu bari di ko wane wala boog man du ay gondi du ay yàq bopp ndax dëkk bii ñu ngi fi waaye li naan picc ngi naaw waaye xel maa nga ca suuf sama gaa yi ngeen partagé picc mi ngi naaw waaye xel ma ma nga ca suuf ndax nit ku baax maanaam boo li naan niilu wanaalu boo ko defee maanaam gis lu baax feneen danga koy yéene sa dëkk maanaam ak càggante gi nga xamante ni si moom la suñu gouvernement yi càggante loolay waral nit ñi di wane yenn image yi bopp wala boog man sama bopp ndax bali insaana ala nafsi basira jubluwuma ci ay yàqu bopp wala dara ndax léeg am na yoo xam ne ku moytuwul mën na soññ nit ñi ba ñuy jaar ci gaal yi wala ñuy jaar feneen te dara jaru ko ci kër àdduna moo tax ba tax na tamit bu ñuy wane yenn itam na ñuy leeralaale nit ñi comme réalité yi nga xamante ni sii moo am euh, mbokk sénégalais yi ñun yii xam nga lan ñu war a jox nekkul ni gone yëpp dañuy màbb pour ñëw ne dañuy ñëw Europe wala dara mais yu mel ni lan lañ war a jox mooy ñun ñu jéem a góorlu comme ni européens yi góorgóoree ci seen réew defar seen réew defar seeni tali hôpital yi mat maanaam nekk si jàmm daal maanaam ah ñun dañu war a gëm suñu bopp war a dépasser yu baree bari war a dépasser sax di ñeete di ñeewaate ay nit wala dara ndax Europe gii mën naa ne ñun xéewal gi ñu yàlla may lu ci ëpp si ñoom dëkk yi bari amuñu ko yenn yi dañuy nax Afrique yenn yi tamit ci seen i pexe bopp daal la ñuy def ba ak seen organisé ba am li nga xam ne bëgg nañ ko moo tax kon ñun lan moo ñu war mooy ñu gëm suñu bopp ñu gëm suñu bopp ba li nekk Europe ñu jéem a fexe mu nekk suñu réew ndax loolu am nañ ko tali bu fi Europe mënta am européens yi mënta am ku moytu sax mën leen dàqale ay tali ndax boo xoolee Sénégal dëkk bu yomba defar la xam nga maanaam mën lépp lu fi am rek ci lépp lu leen di góndi ñun mën nañ ko am suñu réew ñun yaakaar naa ne li ñu war a teg suñu bopp ak fi ñu war a teg suñu bët loolu la quoi mooy gëm suñu bopp mais comme pas naan Europe Europe Europe nii la mel xam nga mais ñun nañ jéem a fexe ndax am nañ ko xaalis bi mi ngi fi. li nekk ci sunu suuf mi ngi fi moo tax ko nanu gëm sunu réew ñu xam ne tubaab yi li ñu am nii ci seen réew dañ ko liggéey ñoom li ñu am nii danoo góorlu liggéey ko tooguñu rek kon boog ñu kon ñu jéem a teg foofu sunu bopp teg foofu sunu bët mu doon loo xam ne lu am solo la xam nga mais nag bu fekkente ni gouvernement bi moom comme Macky sàll mii ak Sénégal ni muy doxee nii lii nii moo nar a continuer Sénégal waxuma la dara waaye jar na gàddaay sax bàyyi Sénégal bu fekkente ni xeetu dunduk ñàkk jom gii moo fa nar a continuer buumu jaam gii moo fa nar a continuer dundugu mitti gii moo fa nar a continuer moom nit ñi moom waxuma la dara waaye ku mën a bàyyi fii jël say njaboot ak say lépp nga mabb bàyyi sénégalais yi foofu xam nga ñu ñoom ñi fas yéenee bëgg a dund dunduk torox ak dunduk ñàkk jom ñu bàyyi leen foofu ñu dund ko ndax nag wax dëgg yàlla yi ñàkk jom la de lépp loo xam ni yàlla daf ñoo deselul dara daal ñun am na lépp am na lu mën a defaree suñu réew am na lu nu mën a mbayee sànq rek maa ngi bëggoon def benn live bu mel noonu gis fi nga xam ne ñu ngi yatt yoon yi fii pour ndox yi di fa jaar nga xam ne taw bi bu jotee ndaw yi du yàq ndox mi du yàqu dañ koy defaraat yoo xam ne daal mooy loolu moo tax kon ñun sénégalais yi ñun ndaw ñi bu ñu jël suñu bopp di ko teg ci ay Europe pour Europe Europe xam nga li ñu war a teg suñu bopp mooy ñun suñu dëkk ñu jéem a fexe mu mel ni Europe ku bëgg a dem Europe mën nga dem Europe pour leneen. bu dee tamit pour liggéey tamit nga dem ba soxla la nga dem fa pour liggéey waaye daal bu ñu jël suñu bët rek teg ko ci européens yi di leen ñee mais nanu gëm suñu bopp nan jéem a defar suñu réew te suñu réew li ñu koy defaree nag mooy fulla ak fayda mooy ci tànk yi nga xam si jël nañ ko ndax li ñuy sàcc ci doomu réew ci askan wi li ñuy sàcc ci alal ak ñàkk sécurité bi lépp rek si ñun lay dellu li ñu ko teg mooy njiiti bon moo tax nañu am fulla nañu am fayda suñu combat bi buñ ko bàyyi mukk nañ ko continuer ba keroog ñuy am lu nu bëgg ndax kat lii kat dafa yomb trop ku mel ni Macky Sall dong ak waa këram toog nii sa waay nekk buur lu ko neex def ñu jël alal réew mi di pasar pasaree di sàcc yooyu moom daf fi war a jeex ñu xeex ko quoi lii rek laa amoon lu ma doon sànni pour sama gars yi mooy comme ñi nga xamante ni sii daal ñi ngi def laaye fi xam nga ba tey yooyu day xaw a mel ni yàq bopp daal pa yàq ñu bopp sax waaye dafay mën na yàq bopp sénégalais yi dëggantaan mu doon loo xam ne ndax dañuy gis européen ñee leen gis tali yi gis gaay yi nekk fi di naa yi gis gaay yi ku ku ñëwoon Sénégal lëndëm ku nekkoon Sénégal lëndëm këris ndax ay problème problème mu lekk problème mu naan problème mu faju problème lépp boo ñëwee fii sawaay waay alhamdulilah di nga xëy am looy jàpp wala dara léeg mën na metti tamit léegi sans départ rek xam nga mais daal lu mu mënta demee moo tane suñu dëkk nu mu mënta mel moo tane suñu dëkk lii moo tax gone yi di jaar ci gaal yi di dee lu nekk di ci jaar te sa waay am nan ay moyen am nan moyen yu nu mën a defaree suñu réew fii Modou yi fi yàgg yëpp ku ci nekk seen xel Sénégal lay nekk li tax ñu am gëm-gëm bii mooy man nan laay mën a def mën a taxawal dara sama réew man lan laay mën a def ba fexe mbay mi yokk sama réew man lan laa mën a def ba sama dëkk maanaam ndax Californie maa ngi gis sànq mi ngi def benn live live boobu sax moo a gën a jox idée sax ma def lii ndax maa ngi ko gis mi ngi wane France di wane rafetaay bi di wane seen tali te loolu lépp ñoom si ñun lañ ko sàccee France moom seen tali yooyu ñu defar noonu tali yooyu mooy sunu franc CFA bii la di jël di ko xaaj France seen tali yooyu seen train yi ak seen lépp lan fa am ñu leen di yéem ci ñun lan ko sàccee ñun sénégalais yi si ñun africains yi lan ko sàccee jël suñu pétrole jël suñu zircon jël suñu géej jël suñu lépp ñëw tabax kon loolu kon yàqul bopp ñoom français yi li ñuy def nii xaw kan waaye français moom yàquñu suñu bopp ñun ndax lépp lu ñuy defaree seen réew lu seen hôpital yi matee seen courant yoo lu muy leer leer seen métro yoo lu muy rafet rafet ñi ngi ko sàcc ci ñun ndax kat suñ franc CFA bi bàyyi leen ci xel bu baax a baax loolu rek lenn la ndax fi mu toll nii foo leen amee téeméer ñoom jël nañ juróom fukk ba boole koog recette yi ñuy jël ci yéen boole koog dini kon boog nañ am fulla ak fayda fexe ba jéem a raw France nañ am fulla ak fayda waxuma la dara fexe ba raw sax Amérique incha allah lépp nag ci àdduna gëm-gëm la nit da ngay gëm sa bopp moo tax askan wi dafa jot ndaw ñi ñu gëm seen bopp daal ci lépp ba ci seen football yeeg seen yëpp complexe dong moo leen jàpp yéen africain ba coupe du monde mënoo leen ko jël coupe d'Afrique mënoo leen ko complexe rek da ngeen am complexe tubaab mais ñun dañu war a teg suñu bët ne ñun ay doomu aadama lan ay nit lan ay dara lan mais loolu ci lan du nekkul ci làmmiñ dong bul xeeb sa bopp nga jéem a liggéey nga jéem a xool maanaam nooy def ba sa réew avancé loolu nañ ko jéem buñ ko jéemee mën ko ñu ngi ci tànk yi li ci jiitu mooy ut njiit yu baax dëkk bi tappale jeex surtout ci ay wàllu atteeg yu baree bari sama gars yi yomb na moo tax kon dara ak combat yi li ñuy combat combat yëpp nañ ci boole combat gëm suñu bopp wallaahi wan ni tubaab gënooñu loolu du ci maanaam ci ay ci ay wax rek mais dafa ci ay jëf la comme ñoom ni ñuy créewee comme ñoom ni fonkee seen doomu réew yi comme comme seen médecins yi li ñuy def di ndamu ñu fekk koo xam ne tànkam di metti ñu sauvé ko ba tànk bi wér ñu koy ndamoo quoi naan man maa sowe naa bakkan tubaab yi yooyu lay di demee ay fexe naa ba nit bëggoon a dee ma sowe ko comprendre nga yooyu yëpp xeetu rafet yooyu xeetu jikko yooyu maanaam ñuy jéem a jikkowoo loolu comme suñu médecin yeeg ñeneen tamit di jéem a sowe doomu aadama yi mais pas comme ñu jël rek jiital xaalis di ndamoo tamit ci lan man maa créer affaire bii di ndamoo ci yu baree baree bari dara jéem la rek buñ ko jéemee mën ko ñun nag Sénégal mu nu Sénégal moo ñu saf moo waral suñu wax yi ba pare nag ñu gëm suñu bopp nag teg ci nag moo tax ñu nangoo taxaw nii tele ci poos te bu doon ca tele RTS wala feneen nii leen koy waxee nii leen koy jame maanaam dafa bokk ci suñ combat yi daal lii jëmalee senegal kanam ñu gëm suñu bopp bañ a xeeb suñu bopp ba a xeeb suñu xel bañ a xeeb suñu dara li naan doomu diw raakal la ba ci lu baax ak lépp alquranu karim comme li mu leen wax ne leen yu saari'una fil xayraat ngeen jëkkante yiw nit ñi dañuy jéem a fexe ku nekk naan mën a mën a diw imposer sa bopp ci dëkk bii ndax ñun ndaw ñi ñun ñooy defar senegal ñun ñoo war a doxal senegal ku ci nekk jàpp ni man Sénégal man maay tax mu dem bañ a xeeb sam xel dafa am solo gëm sa bopp wallahi dafa bokk ci qualité yi rafet dafa bokk ci yëfi ndaanaan dafa bokk ci yëfi góor yàlla waaye nit boo xeebee sa bopp rek jàpp ne ngaa xeebu kon ñun ndaw ñi bu kenn xeeb sa bopp ñun ñëpp nañu jàpp ne dara lan Sénégal lépp lu la waaye ëppalee ak lu mu mënta doon maanaam neen njëkk maa màgget rek boo gisee ko yor sa waay 4-4 nga ne njëkk maa njëkk maa màgget rek waaye benn suba dinaa yori 4-4 gàlle bu kawee kawe nga ne njëkk maa màgget rek mais ngay demee sax ay yaakaar xam ni xéewal gi yàlla moo koy joxe mais nit dafa am solo bul xeeb sa bopp bul jaay sa dignité ngir alal bul jaay sa dignité sa sa ngor ngir dara bu la kenn gondi bul bul kii kenn gëm sa bopp quoi loolu dafa am solo jàpp nag mën nga am lu ne jàpp ni mën nga doon lu ne maanaam loolu dafa am solo ci doomu aadama waaye xeebu jàpp ni man duma dara man ab mandaari la tekkiwu ma dara ci société bi man waruma wax bu ma waxee kenn du ma déglu ni imposer suñu bopp laa la wax moo tax yéen waxkat yi kàcc kat yi nekk ci télé yi di di kàcc rek yéen journalistes yi nekk fii di kàcc rek ak intellectuel yi naan xaw ma intellectuel xaw ma intellectuel moom ni ma ko xamee woon mooy maanaam ab mooy ab ab ndaxekat rek ab xaj rek waaw koo xam day jàng ba pare jàngam bi yëpp daal lim ciy jublu lépp mooy ay naxe moo tax ay français ak ay lépp bu leen dara góndi gëm leen seen bopp sunu wolof bii ngeen fonk ko tamit bàyyi seen français yi bëri yi ngeen di demee seen français yi bëri yi ngeen bàyyi ko wala loo leen wax ci français ngeen leeral ko ci wolof ngeen gëm seen bopp ndax xam-xam yéen langue daf leen xaw a taareel yéen sénégalais lépp nag ndax ñàkk gëm seen bopp kuy làkk français kooku ngeen teg fenn benn bis ci groupe Pastef maa ngi mës a toog di wax benn kii gars yi naan xaw ma massifié xaw ma lan ma ne massifié ki ko xaw ma lan station affaire yooyu gars yi di ma reetaan quoi gars yi di ma di ma ree naan ma non kenn dugg ci suuf sama privé non ni nga ko waxee du dunu xaw massifié lañ koy waxee ma ne ko sama waay man yooyu daf lii ban complexe laa am ci ma toog maanaam déggumay français mu ñëw wax samay wax la ma la ma ca dégg ngeen may ree loolu lan ngeen ma ci reetaanee man olof bi lan may reetaan ma mu mu doon kersa si man mais billaahi waroo leen rus làkk francais yu dëng waroo leen loolu du gàcce ci yéen complexe la complexe bu rëy a rëy gëm leen seen làng tubaab bii bu làkkee wolof mu dëng français ba loolu safu ko lu mu ci dégg baax na waaye xeeb seen bopp xeeb seen langue looloo tax ku leen bëgg a nax dana ko jaarale ci làng ku leen bëgg a nax ci diine gi jaarale ko ci arab ku leen bëgg a ci àdduna jaarale ko ci français bàyyi leen yooyu ngeen gëm seen bopp seen wolof wii seen seen ndéggat yi mu leen di jox ku leen wax dara ngeen wax ko mu firi leen ko ci wolof lan lay firi bu leen ko waxee ci wolof ba noppi ngeen teqantal wax ga naka Seex Anta waxee woon ngeen seetantal ko teqantal ko xàmme ràññe lu ci nekk ngeen xam fa ngeen koy teg bu boobaa di ngeen mën a tontu gëm leen seen bopp gëm leen seen làng ba pare sama gars yi dineen làkki wolof tamit ndax temps yële ci ginnaaw maa ngi dégg x man x bi may dégg yëpp ci usmaan Sonko ñu ne duñ ko x yàlla xam na ni ba ma ko xamee yàggut après ci laa dégg ma ne waa lan mooy x ñu ne ma x mooy comme saa comme saa ñu ne ñu ne ñu ne du moom daal waaye comme ça diw genre yi demee noonu daal comme nañ ko waxee woon rek comprendre nga mais yooyu boo leen koy wax ci wolof dina tax nit ñi xam sax affaire bi sax nim ñaangee x bi ñu def Ousmane Sonko waa lan mooy x mais comme nag toog di jaay ay bës ak yi ay yooyu maanaam x x mais da ngeen koy wax ci wolof nit ñi pour olof yi mën leen dégg pour olof yi xam lu xew ndax danoo toll si jamono joo xam ne danoo bëgg lu leer waxi leer waxi ñu koy seetantal di ko teqantal di wax lu nit ñi mën a dégg li nit ñi mën a dugg ci seen nopp yi ndax naxaate moo jeex ci àdduna bi affaire intellectuelle yooyu moo jeex ci àdduna bi moo tax sunu langue wi képp koo xam ni waxuma mag yi kii moom dama ko dama leen sànni fële ñooñu mais système bi moom danoo bëgg mu jóg fi toogal fi ay président yi fii toogal France danoo bëgg mu jóg fi waaye incha allah bëgg na sunu làng yi muy olof muy xaal pulaar muy lépp ngeen dugalal ñu ko ci sunu biir école yi dinañu gëm sunu bopp lu ci nekk am maanaam lu muy firi ci wolof nga xam ne buñ ko mënee wax démb soo ko daf mel ni am na problème boobu barki démb mi ngi wax mais nee na baat bi nu mu koy firee ci olof la xamut mais loolu lan la sunu càggante la loolooy tax ku leen bëgg nax maanaam il faut que ñu jéem a jël mbir bi jaare la ko ci français pour doo leen comprendre mais olof bii dañ ko war a utal lépp bépp baat boo xam ne am na ci français ñun ci suñ làng yi Sénégal ci langue internet langue yi nga xam ñu ngi koy dégg maanaam ñu utal ko loola pour buñ ko bëggee firiwaat maanaam ñu mën ko firi lu mën a dugg ci bopp nit ñi nañu gëm suñ bopp gëm suñ làng gëm suñu culture gëm suñuy colin gëm suñ lépp ba mu des maanaam suñu jikko yi bon yi mooy jikkoy naafeq ak jikko yi dëgg-dëggulu ak jikkoy tappale ak jikko yu bon yi daal ñu jël sànni fële mais yi baax yi ni tubaab yi en kiiwee maanaam ndax tubaab yi nin amee lu bon noonu lan amee lu baax ñun tamit nun amee li bon loolu lan amee lu baax léegi nag dañuy jël yi nga xam ne yu baax yi nga xam ne tubaab yi am nañ ko maanaam ñu dolli ko ci suñuy baax léegi yu bon yi nga xam ne ñun am nañ ko maanaam yooyu ñu sànni ko maanaam loolu la danoo jot danoo toll ci defar suñu réew moo tax waxtaani xam-xam tamit léeg da ci am solo trop waaye man ndeysaan mbokk sénégalais yi li ma ci gën a mitti mooy billaahi ba léegi dañuy fo ba léegi dafa am ñoom dañuy fo ndax problème bi mooy balaa maa dee rek surtout ci live yi nii wala benn affaire lu mu mënta doon rek balaa maa dee lu ma gën a métti mooy ñun saa saani wax ay affaire yoo xamante ni sii maanaam li nekk di wax yoo xam ni après ay xam-xam nga siy jariñu mën cee xel mais ay actualité rek actualité rek nit ñi ba ci ñiy live wala ñiy wax sax ku ci toog di wax waxi nit di wax wax yoo xam ni pour après di wax lenn loo pour nit mën a comprendre ñoom lan mooy gën ne actualité actualité lan mooy actualité mooy tey benn affaire nee na téel rek ñëpp ne téel benn affaire xew na rek comme exemple euh, affaire Adji Sarr bii nag moom dafa doon affaire bu kii bu bu doy waar sax moom bii moom mu war a doon lu war a teg baaraam bu baax xeex ko bu baax am yu baree bari yu génn ci biir mais comme exemple rek aji saar xew na rek léegi nag ñëpp nag dina ñëw aji saar aji saar aji saar aji saar aji saar mais saa ñu xool comme réew bi ana wan tabaxin lañ koy tabaxee mais affaire aji saar bi moom alhamdulilah ndax dafa indi leneen lu bees loo xam ne pour nan lan mën a tabaxee réew mi ci tabaxin bu baax wax ji yëpp ak guddal yéeg ak laayif yéeg lépp lu ñuy wax mooy Sénégal niñ ko tabaxee dafa baaxut Sénégal dañ ko tabax tabaxinu bon Sénégal niñ fiy jiitalee nit baaxul jiital koo xamante ni sii mu am kàttan boo xam ne kàttan yooyu yàlla kott lañ koy jox mais doomu aadama koo xam ne lu ko neex def benn waaw kase mooy waawam bu ko neexee yàq bu ko neexee tëj bu ko waaye lu ko neex def lu ko neex lu ko neex mais loolu du yëfi nit te loolu ku ñu ko imposé dañ ko war a bañ lànk ndax maanaam réew mi ay tuuti nit rek moomuñu ko mais ñuy waxtaan ci xam-xam te ngeen di déglu xam-xam billaahi li may wax ni yéen ñi may waxal yéen laay waxal yéen sénégalais yi yéen laay waxal wax bu gën a am xam-xam wax jooju ngeen gën a daw man loolu dama ko seetlu actualité rek dara xew na kenn ñëw wax wey Médoune def na ci benn live bu garaaw macha allah youtube bi vie bari loolu amut ay vie ak ay ñàkk vie ak amut benn solo li ci am solo wax ji nay jariñ li ñuy waxtaan na doon loo pour defar suñu réew tabax suñu réew tabaxi lu baax di waxtaan waxtaanu xam ngii ni gëstu mais sénégalais yi wàllu gëstu moom dañ cee sawaru wàllu waxi nit dañ cee sawaru sawaruñ ci dangay gis ku def wax yi ama am solo wallahi waaye du duñ ko déglu la xew rek lañ bëgg benn affaire xew na léegi ñu nekk ci wejak wejak ki live kii moo gën a dal lii ma gën loolu amaluñu solo li ñu amal solo moom mooy lan dikk bii dëggantaan ci lu sérieux nun koy defaree nan lañ def ba bay nan lañuy def ba système bii jóg fi nan lañ def ba France dem yoonam nan lay def ba comprendre lu xew façon ndëgg sërëx yi français yi di teg façon caaxaan yi ñuy def façon boddi konte bin bëgg a dugal sunu réew mu doon lu am solo ñu war ci teg baaraam nan lan jaxasee ay dëkk nan lan taalee ay dëkk pétrole feeñ na sunu dëkk sunu dëkk ay richesse feeñ na ci lii nan lan mën a def ba am ko nan lan mën a def tamit ba comprendre dëgg dëgg dëgg comme li nga xamante si maanaam weesu na maanaam maam yan jàppoon takk jaay surtout rawatina ci wàllu gore man de xaw ma lan waaye man fi ma toll wallahi yàlla laa koy séedeel li ma gën a déranger ci sama dund su ma yeewoo lu ma gën a métti ci sama xol te ku ma koy tere sama xol di baax mooy man lu tax man ñu takk ma jaam maanaam wàlluk liberté wàlluk buumuk jaam gis ngeen nit dignité dafa am solo personnalité dafa am solo mais nag askan wu ñàkk jom askan wu ñàkk fulla ñu jàpp ni fulla daal ak jom daal ak nite daal mooy lan solal sa gàññi laa solal sa mbasin bu kii yoral xaalis kiiwal jàpp ni loolu mooy kii comprendre nga mais nit da nga war a xeex sa dignité nit danga war xoolal mbuum ak jàmm xaw ma lan waaye loolu moom dafa war a dakk man sans ay pétrole sans ay zircon feeñ sans ay mbay bi de mais ñu takk la jaam France ni ñu takkee jaam nii képp koy as gor wal wallahi billahi lazi laa ilaha illa man de daf maa metti personnellement wallahi wallahi daf ma déranger wallaahi damay xëy muy daggate sama xol man man lu tax man ma nekk jaam lu tax français yi dugg sama réew di forcer sama réew takk ma jaam nekk sama buur lu leen neex def sama réew mais am na yoo xam ni dafa am solo ci yëg-yëg boo xam ni nit ki di ko am nit ki du ko am di jéem a libéré wu mais ñu takk la ak njaam boole kook njaam goo xamante ni si maanaam takk la ko cim xel askan wa di nelaw xawma loo leen di mën a xeex ak lu mu mënta doon mais mbuum ak jaam gi gañe gañe gi ci nekk dafa bari mooy dinañ mën a defar suñu réew dinañ ci am koom-koom dinañ mën a dem fenn mais côté boobu rek dafa doyut mais nit danga war a na da nga war a bëgg gore ay wax ñàkk jom yooyu ñu jéem ko bàyyi ay xawma da ngay gis léeg comme Sénégal waaye loolu nañ am kenn ñëw soxlaal kenn ñu ne la xawma sukk say oom yóbbaalewul xawma salan waxi ñàkk jom yooyu nit dangay nit dangay bañ di gedd di gedd gëm sa bopp wallahi ku la na ku nar a may xaalis bu la mayee xaalis après mu lay jéem a takk jaam ba ci yooyu sax dafa am dignité yu am solo la nit may la xaalis ba pare léegi après mu bëgg laa colomotive ndax xaalis même la may naan la jaara fi jaara fa la ne ko merde yàgg sa xaalis loolu nag li koy mayee nag ak ngëm yàlla ci la bokk tamit ndax ku gëm ni yàlla mooy maye yàlla mooy wërsëgal mooy toppatoo dëkkuwaay bii di àdduna bi loolu ku ko gëm doo ñàkk fayda di maral kenn taatam fullaak fayda dignité dafa am solo nit ki sa mag bi nga bokkal ndey baay sax sa nawle la sa yaay bi la jur sax sa nawle la mais ngay bañ ay bañ dafa dafa dafa doon qualité yi rafet quoi ay bañ ay fulla di gedd ay jomb naa def lii man kenn duma jam ñaañi kenn du ma takk jaam ko man nara yàpp ci luy dëgg ay kenn du ma yuuxu ci lu dul dëgg ku ma yuuxu ma yuuxu la ku ma ne benn ma ne la fukk ak juróom ku ma ne góo ma ne la merde dafa am solo di bañ di bañ bañ bañ bañ bañ dignité barki alxuraan barki alxuraanu kari dafa am solo mais xeetu takk jaam ci boppam wàllu jaam wàllu gore di dignité yooyu dafa war a nekk si ñun mais li ci ëpp ci sunu askan nekkul si ñoom lu ci ëpp laa la wax xeet wu ñàkk jom xeetu ñàkk jom boo xam mar day taali lu am laa leen di wax nag lu ma dund laa leen wax li may gis ci sama société bii laa leen di wax ba ci ay teg dil sax ñàkk ku ñàkk jom rek koy def ay teg dil nit nga xam ne yow nga mën a sàcc nit ki tey nga mën ko teg dil mën ko fen suba nga ñëw ngeen jàkkaarloo seen ñaari bët nga ne ko xujj loolu xeetu ñàkk même bu doon ay milliards nga ko sàcc wallaahi du dignité du dignité benn du benn tamit doo banderole sa waa kër ndax nit ku baax da ngay jéem a fexe nga doon sa banderolu yaay ndax li naan doom ju doom ju bon ndey ja ndax nit ki tey bu sa yaay juree doomu sàcc yow nga dem nga sàcc doomu keneen yow kooku comme ñoom Macky Sall li ñuy def nii ñoo ñun ñoo leen gën ndey ndax moom sénégalais yëpp la sàcc tey tey nit ki tey maanaam yow sa yaay jur doom joo xam ne moom du doomu sàcc kon sa ndey kon liggéey na waaye ki nga xam ne ab sàcc la ba sàcc yi yéen sàcc yéen ñun tëj kaso yi génn sàcc bàyyi leen sàcc yéen a ngi yàq seen deeru nday yeeg seen deeru bàyyi ndax dañ naan lii ci njiwu la dañ naan njiwu wala quoi nday ja moo mooy sàcc même yooyu sax dafa am solo ndax nit ki bu sàccee tey boo ñëwee tey sàcc ma yow mi ma sàcc man sama ndey moo gën sa nday ndax yow sa nday daa jur doomu sàcc man sama ndey jur doomu sàcc yooyu dafa am solo ay dignité di xool ay ngor comme yi fi amoon bu njëkk ay di bañ a fenal nit ay dëkk boo xam ne ku dàq kàccal sa morom nga ne kii barke alquranu karim da ngeen a fóore wallahi wal azim xam ngeen moom man alhamdulillah wallahi barke alquranu karim lu ma lu ma gëm laa ne ma ndax alal gii dama ko tegu fenn ma damaa faalewu xaalis barke alquranu karim pajuk aajo laa koy doyee lu ma gëm laa leen di wax Sénégal ba cat amul ku ma fa ñee Macky Sall moom yàlla bu ma mel ni moom Ousmane Sonko mi ñeewu ndax engagement bi mu bëgg a jël moo rëy yow lu doy ni réew lu doy ni président nga nar a jël engagement boobu wax dëgg fa yàlla kooku dama laa yërëm parce que alxuraanu karim ndax li mu jël dafa dafa diis de combat bu diis a diis la nara a kii askan wu naafeq xam nga yombut daal wax dëgg fa yàlla xam nga ku yorul ñaari dërëm moom bu toogee naan leen bëgguma nekk président moom doo leen ko gëm. ndax nit ñi fan teg seen ah, fi ngeen jël teg mbir mi la sunu borom subhanahu wa taala wax ñu wala al axiratu xayrun abqa alaxira moo gën te day continuer àdduna gi dafay jeex comprendre nga mais tey ku nar a jël tey responsabilité lu doy nii réew nga nar ko yor kooku man dama laa yërëm kon koo yërëm kon damaa xam ne kon ñeewuloo ko kon kenn du ma jënd lu ñaari dërëm kenn ku ma soxla moo tax wax ñu du neex il faut ñu defaraat suñu jikko yi di bañ wàllu gore moom bu mu jaam ji man de ni ngeen ma takkee jaam képp ku ma takk jaam moom bàyyi naa la yàlla ndax yéen ñu takk jaam nañu xeex xeex bi benn yoon mu jeex barki alquranu karim Macky Sall mii tubaab moo ko fi teg Senghor tubaab moo ko fi teg Ablaye Wade tubaab moo ko fi teg mu leer ñi ci seen ci ci yéen mu leer naññ ñooña ña leen jàppoon Kunta Kinte seeni maam takk ko ba tey jii ñooñoo fa nekk man waxuma leen sax ay zircon ba ak pétrole ba mais pour gore pour jom pour dignité pour dignité pour dignité esclave jàpp la takk sa maam monete sa maam yooyu yóbbu gore bu wax sa beneen maam ñëw jàpp sa maam takk seetu man yooyu man wax ma sa ay billaahi man laa sama côté wax ma yéen ndax man ay zircon pétrole ak yëpp maanaam bu ma xëyee li ma gëm mooy li sallallahu alayhi wa sallam wax allahumma ma asbaha bii min nicmatin aw bi ahadin min xalq fa minka waxdaka la sharika lak fa laka alhamdu wa laka alsukuru yow yàlla bu ma xëyee kan laa kii turam fii sax waa papis daa di yëkkati maanaam benn cent euro mu jox ma ko yow yàlla cent euro bi jógewul ci papis si yow la jógee yow yàlla yow yaa yoo cant yow yaa yoo ngërëm yàlla sunu borom ne bu ngeen wakkiloo comme picc ni mu wakkiloo ci yàlla nee na bu xëyee dafay dem lekk ba suur mu yóbbaaleel doomam kon ku jiital yàlla kon ay réew mu dox ak réew mu doxul ak dangay xeex pour xeex nii rek xeex ngir jaamu yàlla rek xeex ngir gis loo xam ne ay àq yelef doomu aadama waaye doo gëm président ndax koo xam ne ku am jom la waroo toog sax di xaar sax ay président sax di la dimbali yàlla nga war a jiital def say sabab incha allah ndax loolu mooy jëmale réew mi kanam dëgg na nag sunu alal yeeg sunu lépp dañ ko war a jël njiit yu xaja yu bon lan yor pour déggin lay laaj mais daal ay jom ay fulla yenn jikko yi tàppale ñu dindi ko sunu kii ba pare déggu nag ba bàyyi bàyyi nax suñu bopp yooyu buñ ko defee incha allah danañ dem waaye bu mu jaam gi de man de xawma kan personnellement Medoune Diop Watawasaw Bil Haqqi billahi alladi laa ilaha illa huwa bu fekkonte ni tey man gëriye bu fekkonte ni tey comme jamonoy maam ni ñuy xeexee ñu yor jaasi pour gore barki alquranu karim man damay gore wala ma dee wallahi damay gore mbaam sàll mee danaa dem fekk ko pare ma dóor ko wallaahi wallaahi bu fekkonte ni xeex bii xeexu daggante contre la laa la wax comme Macky Sall ni mu nekkee nii guur ndax mooy ay jamonoy Mamadou Massi laa rek ay Mamadou Massi laa buur la woon bàyyi ji bi seexu buur la Mamadou Massi laa doon benn waay ci ni ma ko doon seetaanee ci temps booy ci télé yi nga gis Mamadou Massi laa nekk fee sa waay ak ak bàyyi ji bi seexu Mamadou Massi ñëw ak coppite ki yooyu mbaxane buur yi ngand yooyu gars yi saaf ginaar mu leen doo ko lekk di nappaate xam nga non bàyyi jibi seexu waaw bàyyi jibi seexu di waay yow Mamadou si laa doon benn booy yooyu day dafay dafay am day maye nit ay jom comme saar yooyu ngeen ci teg seen bët waaye Mamadou Massi laa jógee fële ne ko bàyyi jibi seexu Mamadou Massi laa mooy non bàyyi jibi seexu mooy Macky dem saa waay dafa dafa dafa dafa noq bàyyi bàyyi jibi seexu ba pare doom ja mari laa nekk soxnaam nekk gëriyee barke alquranu karim bu fekkonte ni jamonoy maam jamono ji ay jamonoy yat la daggante ay sang ay fetal am yii xam nga yii moom da kii ñëw ñu dóor la fetal fii nga dee après mooy loolu mais ba tey sax jar na ko waaye moddu daw moddu wax ay daggante lay doon ay kuur fii comme ñoom lajjoor jamono ay barki alquranu karim man du kenn du ma takk jaam wallahi ma sauvé leen yéen sénégalais ku ci nekk nag nii nga war a taxawee ak Ousmane Sonko ak ñoom faatumata Fatoumata soo ñoom ñooy ay kii nu mu tuddati ndaw soo su nekkoon Casamance waay Alioune Sitoé Diatta xaw ma nu mu tuddati ay guerrier man waa Casamance yi dan maa neex ndax ay guerrier la ñoom koo ci dégg rek xeex lay wax xeex pour xeex ba bu mu jaam gi dog bu mu jaam gi dafa war a dog ñu xeex ku nekk sauvé sa bopp barki alxuraanu karim ñëpp doon ay capitaine amul kenn il faut am ku jiitu waaye ko ci nekk yow da nga naan man maay capitaine man maay defar Sénégal mais mbuumu jaam gi man moom metti na ma de wallahi sama askan tooñ tooñ nan ma da ngay juddu ci xeet woo xam ne da ngay judd saw xol di daggate quoi mu nga yeewu rek mu wër na yow jaam nga cent pour cent cent pour cent takk sama yaay jaam cent pour cent sama baay jaam cent pour cent sama sëriñ jaam cent pour cent yéen ñi may déglu jaam cent pour cent kañ lay jeex kañ ngeen di jóg ngeen xeex xeex bi nag carrément yéen a ngi xeex mais des na yéen a ngi xeex mais des na xeex bi il faut que mu mitti ambassade yi bu leen ko fàtte ambassades yi bu leen ko fàtte ngeen dem fa sa waay tojote léegi nga xamante ni si gaa yi mën a jàpp ci combat bi école yi sa ngeen def année balance fexe affaire yi sa mu jaar ci yoon lii du jaar yoon du fenn du dëgg du yoon li ñuy def Ousmane Sonko nii du dëgg du yoon te mbir mi sa nekkul Ousmane Sonko dong dong pour Sénégal la yow moom ku ñàkk jom nga kii sama waay sëñ kii kii xaw non yow baal naa la man jigéen moom wax dëgg yàlla mënu ma laa wax yéen yi mais bu doon góor la moom ma wax la sa bopp ndax bu dee jigéen moom am problème mais ñàkk jom rek nag ñu baree bari yi nekk fii sa waay nit ñi di wax ngeen kii sama waay jéem leen gore jéem leen xeex xeex bu mu jaam gi li leen wax lu am solo la ngeen partagé laay bu baax a baax a ngeen jéem a gore pour bu mu jaam gi dagg barke alxuraanu karim lii dafa ëpp nekk jaam nekk jaam nekk jaam xam ngeen lan la ay jaam ngeen loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax France mooy seen baay Macron mooy seen baay ndax président Macron mooy baayam mooy digal seen réew di sàcc seen alal France lu ñu am mën nañ ko am suñu alal rek la ñuy sàccee sama doola baag or baag pétrole baag lépp di ko sàcc di ko yóbbu seen réew nan am fulla nan am fayda barke alxuraanu karim ku nekk jóg pour jéem a goreel sa bopp man moom doole gi moo fi nekkul rek pour loo xam ne maanaam di nga mën a xeex ñëpp gore waaye yàlla xam na ni bu wóoroon ni buñ ma saraxee maanaam man dong ma diyee Sénégal yëpp ngeen nekk si jàmm wallahi pare na yàlla na defal jàmm yàlla def jàmm ci dëkk bi def gaa yi ay góor yàlla ñu bañ a nekk ay tapet xeexeer bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.